ñaareelu point bi muy intégration ñi nga xamante nii ñëw nañu ànd ak ñun ñu lim leen léegi di Momar Dia di xalifa Mbaw di buur Guéweul di euh, Malick Kane mu ñoom Mansour Thiam ñoom Habib Diop ak jigéen ñi nga xamante ni ànd ak ñoom ak képp koo xamante nii xool nga ba gis ni sama taxawaay ci Tivaouane day li ma ci doy mooy mu ñëw ànd si ak le maire Diagne Sy Mbengue ñu liggéey maa ngi leen di remercier ci loolu di leen remercier également ci seen présence lim nañ ci Paa Ibra Jara mosul dem dafa gën a actif rek defe naa ni loolu dañ koy sante yàlla sëñ Touba njaay bu kër xaal yi wax na dëgg moom moo doxal tànkam ñëw ni ma li ma gis doy na ma ànd ak délégation yamu fa tey jii ñëwaat na teew sëñ Touba jërëjëf ak ñi nga xam ne nii ku mel ni Aldo nekk fii waa quartier Alamine waa Kawsara Dóo bi nga xamante ni seen délégué de quartier monsieur Dieng mi ngi nii ak Modou Mbaye mbay ñëw nañu ngir jàppale ñu ci liggéey bi ma leen di ñaan ak soose yi soose yi anañu Bas Mbaye tey moom moo leen indi ñoom ñëpp it ñu ngi leen di dalal may ña may ñaan bu baax a baax ñi nga xam ni ñoom lañu ñu fekk si ci lii ñuy def tey ëppatuma leen droit. ci lépp loo xamante nii ñu ngi koy doxandoo nañ leen ubbil nañ leen yaatal le cabinet vous avez ce rôle de les intégrer davantage jigéen ñi ni ma ko waxee waa Basan Ngor Teranga képp kuy jigéen tàllal leen ko basan bi mu toog ngeen xelil ko ndox mu set ak kaasu meew mu naan comme ni ngeen ko tàmm defee am ngeen jàmm am ngeen teranga te ku dugg ci biir groupe bi di nga xam ni group bi au-delà de la politique di nekk seen ay diggante yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na leen yàlla musal ci seytaane waxuma nag waxuma nag yame ko rek ci ay kàddu maanaam bu ngeen fi jógee ngeen fexe ñi ñëw ñëpp ngeen fexe ba boole leen seen groupe whatsapp yi mais aussi def naa am na benn liggéey bu ngeen doon waaj tàmbali muy jël seen tànk jël seen oto dem di leen seeti muy ñoom muy ñoo xamante ni ñoom identifié nañ leen ñu mën a ñëw jàpp ci liggéey bi. ndaxte euh, bu fekkee da ngay def lu baax nekk ci di ñaan lu baax fekk la si te naam lu baax mu ñu siy fekk da koy gën a yaatal ba ñëpp bokk ci bi ci des aussi les jeunes même appel laa leen di def ku ñëw jeunes yi mu àndaloon nañ fexe ba jël leen boole leen si GSD GSD mooy formation bi nga xam ne association yi amul yëpp ci lañ bokk muy motiver mi ngi ci GSD CICD mi ngi ci mi ngi ci GSD ak ñeneen ak ñeneen yeneen asso jeunes yu organisé wu ñu ci biir GSD naam ku si nekk mën ngay doxal parfois ay activités yoo xam ne moo la taxoon a jóg mais foofu nag mooy l'organisation fédératrice na ci ñëpp bokk na ñëpp ñëw incha allah ci biir organisation des jeunes boobu kon maa ngi leen di wax dal leen ak jàmm yàlla bu leen fi gis leen naqari lii ñu am yéene ensemble ci Tivaouane jëmale ko ci kanam yàlla na ñu yàlla dimbali ba ñu réussirandoo ko ñu ànd ñun ñëpp nag nekk ci yoon yoon nag yombul ma leen di ñaax di leen wax ni nit bu la gisee nga nekk ci yoon kon ñun dañu nekkee ci yoon dinañ la jéem a gàllankoor dinañ la jéem a taxal dinañ la jéem a bëmax waaye nag ñun dey duñ wax ku ñu bëmax du ñu waaye suñu daañoo it dinañ jógaat li mu gën a gaawee kon ma leen ñaan ngeen saxoo muñ ngeen saxoo jëlale waaye nag yamul ci ñàkk fayda ba ñuy teg seen kaw loo xam ne waruñu ko teg seen kaw et loolu nag maa ngi sant bu baax waa CICD ci taxawaay bi nga xamante nii ñoom taxaw nañ ko ba lépp loo xam ne nar na jóg jëm suñu kaw ñoom dinañ ci taxaw ba mu ba mu mat sëkk kon li des mooy man dama jàpp que ni mbooloo mi ak beneen mbooloo man moomuma ko président de la république Macky Sall moo ko moom kon suñu mbooloo ku ci bokk ak ku ci bokkul sax tey jàppale président Macky Sall ñun dinañ la tàllal loxo ànd ak yow ba président de la république li mu bëgg ci Sénégal mu def ko wante lu nekk dafa am temps wa ca fañ ci jëm bu jotee taxawaay yi ci war a taxaw ñu ànd taxaw ko ci kon maa ngi leen di ñaan bu leen kenn tardeel nekk leen si li ngeen nekk jigéen yi ñu ngi si lu ñu nekk di def seeni formation di am seen ay financement yoo xam ne tey jii képp ku ñëw rek yéen ñi fi nekkoon sax bu naree manqué arrière leen ni man bàyyi naa sama part jox naa ko ñi nga xamante ni ñoo ngi ñëw waaye yaakaar nañ ni sax yaakaar nañ ni suñu yéene bu eggee ñëpp dinañ ci xaj incha allahu taala parce que taxawaay boobu mooy taxawaay bi nga xamante ni moom la ñu fas yéene taxaw ndaxte ku am président bu mel ni président de la république Macky Sall mu am vision ci Sénégal am lu mu wane ci Sénégal wante surtout mu jox ñu l'exemple man dama wax ni ñun suñu muñ. lépp loo xam ne ñi ngi koy teg suñu der te du dëgg si ñaari nit principalement gannaaw ba suñu ko ay waajur ñi nga xam ne ñi ngi leen sant di leen gërëm sante ñi ngi ko jëlee ci góor bu mel ni maam Abdou Aziz Dabakh waaye ñi ngi ko jëlee ci président de la république Macky Sall qui aurait cru kan moo naroon a xalaat que ni jamono yii ñuy dund si Sénégal ñi ko wër ak fi ñu jaar ak moom dina dem ba jéggal leen mais comme Martin Luther King nu mu ko waxee nee na le pardon ne par un acte occasionnel c'est une attitude permanente maanaam jéggal doo seet kañ ngay jéggale ak kañ nga warul jéggale foo toll ci àdduna ku la tooñ rek jéggal loolu moo indi tey président dem ba nga xamante ni bu doon day seet boppam rek naan su ma defee nangam dinañ ni ah man kat xëy na li ma def nii nit ñi mën nañ juger que ni faiblesse la wala dara du ko def wante jiital na moom président de la république Macky Sall ñaari mbir jikoom muy jégg moom day jéggale fu mu toll bi ci des muy intérêt Sénégal nit ñi nag lu ñu bëggoon mooy Macky Sall mi tundum ñëpp nekk ci opposition bi di xeex ak moom naam bu boobaa dina leen daan ndax daan na leen daanaat leen waaye nag jàmmu senegaal ak Sénégal fi mu jóge ci Covid bi nga xamante ni jeexagul moo tax mu ni fàtte naa sama bopp teg Sénégal sama kanam mu ni ku mel ni président réew mi sa Seck kenn xaaru ko waaye tàllal naa ko sama loxo na ñëw ma ànd liggéey ak moom ku mel ni Omar Sarr PDS kenn xaaru ko mu ni tàllal naa sama loxo na ñëw ànd liggéey ak man ñu ni Abdoulaye Gakou mu ni tàllal naa sama loxo na ñëw liggéey te des na ñeneen ak ñeneen ak ñi nga xam ne njëkkoon na leen am ñun nag suñu xalaat ci mbir mi mooy que président li mu def dinañ ko ci jàppale ba mu mat sëkk ngir jàmmi Sénégal à commencer nag fii ci Tivaouane suñu mbokki réew mi yi si nekk nga xam ne démb ak bërki démb lañ nekkoon si jàmm suñu mbokk yi nga xamante ni opposition lañ nekkoon ñu tàllal leen loxo ànd ak ñoom liggéey Tivaouane ngir Tivaouane jëm kanam olof nag dañ naan dañ naan lu nuy fàng kenn ko jeex ndax mën naa ko mënul du ci rhétorique du ci théorie waaye li mu def ci dëkk bi nit ñi gis ko mu koy dérouler avec une planification scientifique moo ñuy wan ni kii ku ko jàppale dina yóbbu Sénégal fa mu ko war yóbbu muy lan muy vers le développement budget bi ñuy voté dégg ngeen ñu naan budget ay chiffres rek la déedéet waaye croissance moom du ay chiffre kese croissance réalité la Sénégal dañ ñu woon dinañ def arrière ren de zéro point soixante quinze ci croissance bi mais xerañam ak taxawoom ci feebar bii di Covid nga xam ne ndërmeel na économie yu mag a mag dem na ba waa FMI ni zéro point soixante quinze yooyu ñu naroon a perte sax dootuñu ko perte ndax njàmbaaram Sénégal ci àdduna bi ñu ni dëkk yi fi nekk yépp moom mooy ñaareelu dëkk boo xam ni ràññee nañ taxawaayam si wàllu xeex Covid Et ça, nous le devons au président de la République, Macky Sall. kon ñun dinañ gën a dëgëral suñu taxawaay jàppalewaat ko soutenir ko ci politique d'ouverture bii nga xamante ni am am na ko ndax ñaari mbir jàmmi Sénégal waaye économie Sénégal ñu tal naka la ñuy def ba jëmale ko kanam ndax Covid bi bi mu fi ñëwee am na lu mu wane kon ñun ñii fi nekk ñépp maa ngi leen di ñaan ngeen nekk ay avocat nekk défenseur am ndax balaa Sénégal di nangu li nga xamante ni def na ko jëme ko ci ñooñu ñun ñi nga xamante ni ñu ñooy ay partisans am ñoo ko war a nangu suñ ko nangoo ba pare ñu jëfe ko sur le terrain kii nag appel la bu fort a fort boo xamante nii maa ngi leen koy lancé yéen ñi fi nekk yépp bu ñu rusa wax ni ña nga xam ne démb dëgg démb ay opposants la ñu woon tey jii ñooy ànd ak ñoom di liggéey ànd ak ñoom su le terrain jox leen place bi ñu war a am si suñu biir groupe lii bokk na ci li gënoon a am solo ci lii nga xamante ni nii jataay la bu ñu wootee dëgg la namenti ko mais surtout encore une fois fësalaat suñu Pastef jëmale ko ci le président de la République Macky Sall approuvé jàppale ko ci li nga xamante ni nii mooy mooy politique am gudd na gàtt na lii mooy kàddu yi nga xamante nii bëggoon naa ko fésal mais encore une fois ñu yaatal dënn yi ndaxte nee nañ nit bu la dàqee dàq jotu la dina jékki-jékki sànni xeer jotu la dinañ la sa taat yu yi waaye bu boobaa nag bu la metti na fekk rek yow nga dem raw ko bàyyi ko fa dugg ci oto bi moom muy moom la poussière kon taxawaay yi na gën a dëgër suñu jógee fii insha allahu taala suñ fi jógee dinaa wax le juróom politique bi nga xam ne ñu ngi koy taxawal avec la cabinet ñu def nag ay rencontre sectorielle yoo xamante ni ci quartier yi lay doon jigéen ñi ñëw am na lu ñu nar a commencé wër ci quartier yi kooku dama leen di bàyyi ñëw ñu déroulé ko mais aussi comme ni ñu def démb ak bërki démb dem Alamine dem Kawsara dem Daaru Salaam la même chose aussi dinañ ko mën a continuer insha allahu taala Tiwaawan nag ku waxal yàlla xam ni Tiwaawanu 2014 ak Tiwaawanu tey wute na li ñu fi def li ñu fi def ci ay réalisation ci ndimbalu yàlla ci ndimbalu yàlla ak taxawaay am nañ yaakaar ni fu ñu jaar dinañ siggi parce que kilifa yi jaxoñoon ah am naa yaakaar ni ne rusuñu ndaxte remettre nañ leen choses en l'ordre ba lépp di jaar yoon loolu moo si moo si gën a am solo ut nañ maire yi fu ñu dugg ndax amuñu woon maire yi dañoo fekkoon ñu lakk suñu maire bu fekkee ay tali la gis ngeen Tivaouane liñ fi def si ay tali xëy na nag suñu yéene des na ci village rattaché yi neex ay ndugg quartier la pour que tali ak li nga xamante ni nii moom mooy ndox mi courant bi nañ ko bëggee mu demee noonu waaye ku jàkkaarloog làmp bu weex bële xam ne am na lu xam ni am na lu fi changé ku jaar yi ñëw xam ne am na lu fi am na lu fi changé ku dem fële ñi tabax CIVD ba xam ne am na lu fi changé ku dem xada euh, infirmerie de la xadara xam ni am na lu fi changé ku dem stade gis Tivaouane di football guddi bu ñu fàtte ni avant ñuy ñëw nag kenn daawul football guddi Tivaouane ñu xam ne ci tamit am na lu fi am na lu fi changé. suñu nee ci xale yi ci xale yi ci xale ne xale yi ana ñi nga xamante ni nii ndax liggéey moom yàllaa ko yor waaye am na ñi nga xam ne monsieur le liggéey ana ngeen dina bari ñu seeni loxo waa fera waa fera rek waa fera laa wax waxuma sax ñi nga xam ni utal nañ leen liggéey ci ay entreprise au niveau national mais waa fera rek juróom fukki xale lañ mairie ba xale yi nga xam ne jël nañ leen bi ñu ñëwee léegi si lu ñu budget li mu àttan mët nañ ñaar fukki nit te nag pareeguñu incha allahu taala projet yi ñu am Tiwaawan muy CIVD muy valorisation des boues vidanges dinañ am lu toll ci ñeenti téeméer ba juróomi téeméer ci ay emploi te nag duma ko jagleel kenn ku du ndaw yi mais aussi jigéen bi xamante nii dese nañu doole pour liggéey jamono yi may wax ak ñu ngi clôturer école Kër Birima ñu ngi clôturer école Guumuun kon daal li ñu mën ci suñu budget allahu taala dinañ ci taxaw ci askan ci soxlay askan bi ba Tiwaawan Tiwaawan jëm kanam kon maa ngi delluwaat di yamale foofu kàddu yi nee na ñu boole ci école 15 am na lu ma Ousmane Sarr wax sànq tamit. loolu yëpp incha allah suñu objectif école yooyu ngeen di wax dañuy bañ a wax loo xam ni tàmbaleegul mais am nañ partenaire boo xam ne ñëw na ba xool ko waral nañu clôturer ñaari école bala mu yàgg te incha allahu taala boobu si lay parce que ñun bu ñu nee laaj ñu lu ngeen bëgg dañ naan ren rek lu jëm ci école yi wala lu jëm ci santé bi wala lu jëm ci wala lu jëm ci xale yi wax nañ ñu waxi tablement ku ne xam na ni ba ñu ñëwee taxawaay bi ci am. avec le ministre de l'éducation te am nañ yaakaar ni ren jii incha allah loolu dinañ ko taxaw ba lu ci nekk ay jafe-jafe ci wàll boobu ñu am ko parce que sañoon nag suñu xale yi duñ dem école di toog à 4 wala à 5 ci biir ay table banc kon maa ngi dellu di nuyu ñëpp di sant ñëpp defe naa mënoon naa commencé di tudd nit ñi kenn par kenn kenn par kenn wante bu boobaa xëy na dina jafe mu tudd ñëpp waaye rek ngeen may ma. ma beral loxo ñi nga xam ne fa ñu jógee xaw nañu sori muy les nouveaux quartiers ñu leen di woowee les villages rattachés di bu baax a baax seen teewaay di leen wax ni di leen wax ni seen yitte muy ndox muy courant bi ak yoon yi defe naa ni ba ma ko defee sama ñu yitte bopp yàgg na am na ñu ci jot a am chance fu mel ni Santhiou Pire ci wàllu extension d'eau fu mel ni sel Selko ci wàllu extension d'eau fu mel ni. kër Bakar ku mel ni njagamu nga xam ne amul woon ndox Parba def nañ fa tali Ndindi Baal def nañ fa tali Siinu Xaali def nañ fa tali Njaajin def nañ fa tali Kër Saala Dërgën def nañ fa tali et cetera et cetera loolu ñu koy faral di wax sax ñu di wax nit ñi dañ naan nga ñu jaawoon nan la def ba réussir lu mel nii dëgg la. am xaalis pour bi baax na waaye nag am ay pexe sexe yi ba lu yëpp ci Sénégal nga dem jëli indi si la bokk te loolu mooy suñu taxawaay ñun nag ñun nag Tiwaawan gi moom lañu ñu am fi la ñu jàngee fi la ñu amee suñu kon tey ñun ñooy delloo Tiwaawan jukkal lépp luy taxawaay jëm ci biir Tiwaawan duñ ci sonn duñ ci tàyyi waaye tamit ñu xam ni rek suñu taxawaay jëkk ci lii ñuy def ak yéen ñëpp dama bëgg mu doon d'abord mu doon d'abord jàppale la président de la république Macky Sall fësal suñu ànd ak moom wan ko ni ko wóolu nañ ko xalaatam doy nañu xam nañ ni bëgg na Tiwaawan te insha allahu taala dañ koy jàppale ba mu mën sëkk fii ma koy waxee nag neex na ci man ma xam ni li may wax lu dëggu la ndax fii la taxaw bés tiim Tiwaawan ni Tiwaawan mérite mieux saa ça ku wax loolu nag ba nga nekkee opposition defe naa ne fi toll nii wane nag que ni Tiwaawan bëgg na ko barki dem rek dégg ngeen xale général de Tijaan mu ni président joxe un milliard pour jàppale ko ci tabaxu jàkk bi te balaa boobu gis nañ la maison des hôtes bi mu fi def gis nañ la grande salle de réunion bi mu fi des gis nañ auditorium bi nga xam ne bu ñu koy wane télé dañ naan ndax fii Tiwaawan la comme nag Macky Sall bëgg nañu taxawu nañu yëg nañu ñun tam ñu ngi koy bëgg di ko taxaw di ko yëg fas yéene nag di ko jàppale te encore une fois képp koo xamante nii yaa ngi koy jàppale defuñu la adversaire waaye partisan lañ lay def ndax loolu mooy ëpp solo si suñu taxawaayu politique balaa leneen di leen sant di leen gërëm asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu